ndil la nuyoo bu tedd di la ziar ci turu kilifa gi ñu àndal muy ministre de la santé et de l'action sociale ak délégation bu mag bi mu àndal ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sargal di teg ci sa loxo nuyoo bu sell nuyoo bu sell ak ñaan ak ziar nga àggale ñu ko ci ku tedd ki muy xalifatul am Serigne Mountakha Bachir Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mbooleem njabootu sëñ Touba ak mbooleem taalibe yi sama kilifa ne ma su ma jëlee kàddu naa ko sant naa la sant bu baax ci dalal bii nga ko dalal fii tey ci résidence Khadim Rasoul ak délégation bi mu àndal muy délégation bu mag moom ministre de la santé et de l'action sociale docteur Ibrahima si jiite ko ànd ci ak le secrétaire général du ministère de la santé et de l'action sociale muy Serigne mbay nga xam ko mu nekkoon fii ci département bi préfet du département de Mbacké nekk l'actuel secrétaire général du ministère de la santé et de l'action sociale mu ànd ci délégation bi ak ki ñuy wax Ousseynou Ngom Ousseynou Ngom mooy daaju ministère de la santé et de l'action sociale moom moo yor lépp luy euh, affaire u administration ak lu demee noonu ci biir ministère bi mu ànd aussi ak ku ñuy wax Abdallah Wade muy directeur bi yor SAM yi wàllu paj mu jàmp mi moom lañ yëkkati teg ko ci loxoom muy docteur Abdallah Wade mu ànd aussi ak ndim bu jéem mu toogal fii directeur des infrastructures des équipements et de la maintenance nga xam moom moo yor lépp lu jëm ci tabax hôpital ak toppatoo hôpitaux yi ba mu mën a euh, taxaw taxawaay bi ñuy xaar ci ñoom mu ànd ak ku ñuy wax docteur Siga Diop Dem muy conseiller technique numéro 4 nekk aussi koo xam ne dafa nekk ci wetu ministre bi di ko xelal ci wàll yu baree bari mu ànd ak conseiller technique Abdoulaye Ndiaye nga xam moo yor lépp luy wàllu social ci biir ministère bi yo ànd ak ku ñuy wax Ismaïla won muy chef de cabinet wu ministre bi ànd aussi ak ku ñuy wax Soxna Awa muy conseiller en en communication bu ministre bi mu ànd ak ku ñuy wax Abdoulaye Thiongane muy chef di protocole du ministre ñu ñëw fii ci région bi fekk fi monsieur le gouverneur de la région muy gouverneur bu jurbel ànd ak préfet de Mbacké ak le sous-préfet de Touba ànd aussi ak chef de service yi nekk fii ci wàllu santé muy directeur d'hôpitaux yi ak médecin chef de district yi ci médecin chef de district yi docteur Ndeye Maguette Diop Ndiaye mu ngi fii docteur Adama Aydara bu Mbacké mu ngi fii docteur Dieynaba Kane bu Bambey mu ngi fi docteur Moussa Ndiaye médecin chef de district bu Diourbel mu ngi fi ñu ñëw fekk fi ànd aussi ak le directeur de l'action sociale ki nga xam ne lépp luy sociale ci région bi te war a jaar ci ministère la santé moom moo ko yor muy mbay jonn moo yor lépp luy sociale ànd ci ak service départementalu action sociale bu Mbacké ak CPRS bu Touba ak képp koo xam ne rek da ngay liggéey ci wàllu sociale ministre bi ñëwoon fekk fi ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi muy acteur communautaires yi fekk fi aussi personnel de santé yi fekk fi képp koo xam ne rek da ngay jàpp ci liggéey yi muy bàjjanu gox bi bàjjanu gox yi soxna Fatma mu ngi fi Fatma Diop mi nekk présidente bàjjanu gox soxna Ndioba Mbacke mu ngi fi ànd ak kilifa yi nga xam ne dañu nekk ci biir Euh, Touba di leen jàppale ci wàllu santé ñu ànd ak Mor mu taxawaloon maire bi waaye maire bi ñëwal boppam fekke jotaay bi li ñu ci wax yëpp mu fekke ko euh, jotaay bii nag li tax ministre bi jóg dafa fekk dañu dëggmal màggal bi mu am mébét yu bëri yoo xam ne ci wàllu wér yaram dañ ko mébét ngir mën a taxawu askan yi mébét yooyu ministre bi da ko tàmbali di saytu ca ba ñu defee CLD bi ba ni ñu ñëwee ministère de l'intérieur waxtaan fa lépp mu tënk ko fas yéene ñëwoon tey ngir saytu loolu fuñ ci toll ak taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ngir taxawu màggal gi fu mu toll bi mu ñëwee présenté nañ dispositif bi maanaam bérébu li bérébu fajukaay yi nga xam ne moom la ñuy taxawoo ñi nga xam ne ñooy ñëw di màggal si béréb yooyu toll na ci 186 points maanaam téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn point yoo xam ne dañ koy def ci biir dëkk bi euh, bërëbu fajukaay yooyu bokk na ci hôpital Cheikhul Khadim hôpital Matlaboul Fawzeyni ak hôpital Ndaamaatu ministre bi mu jógee tey dem na hôpital Ndaamaatu saytu fu liggéey bi toll ngir xool taxawaay yi nga xam ne hôpital bi war na ko taxawu ngir taxawu nit ñi fan lañ ci toll bi mu fa jógee dem na xool service d'hygiène service di d'hygiène liggéey bi muy def ci dëkk bi ci wàllu waajal màggal gi di pompe kër yi ak di pomper bërëb yi nit ñi di daje mu laaj leen fuñ ci toll ak lan mooy seen jafe-jafe ngir mën ci taxaw bi mu fa jógee dem na hôpital jéemul centre de santé jéemul dem na xool bloc opératoire bi ñu fay tabax ak xool itam seen taxawaay ci màggal gi nan la ciy mën a gën a taxawee ngir ñu mën a taxaw ujaaj yi ngi ñëw ci màggal gi bi ñu fa jógee nag dem nañ Cheikhul Khadim saytu bérébu fajukaay yooyu ñu doon wax ne tijji te tey ñu mën a wax yooyu yëpp tijjeeku na ministre bi dem na gisal boppam kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax xam naa wax ji du gudd ndax dañuy jox ministre bi ci ay kàddu yu muy tënk jébbal la xalaatam ci li nga xam ne moom la gis ginnaaw bi mu nemmee ko bérébu fajukaay yi ñu ngi e, daaneel suñu kàddu di la sant di sant bu baax ci say taxawaay ak jàppale bi nga xam ne yaa ngi koy jàppale bérébu fajukaay yi ak fajkat yi ak taxawaay bi nga xam ne yaa ngi ko am ci wàllu santé muy loo xam ne ñun ñii ci yëngu te ñu def ñu ci jëwriñ xam nañ bu baax taxawaay yi nga ci taxaw taxawaay yu mucc ayib la di euh, la jox suñu ziar ak suñu cant ngir nga àggale ko sëñ Muntaxa Bachir ci ay taxawaayam ci réew mi ak ci àddina moom taxawaayam jéggi na dëkk bi dem na ba ci réew mi yëpp lu xew mu taxaw ci te lu mu taxaw taxawaay boobu maanaam dañ ko ci sant sant boo xam ne amul am na fu muy tàmbalee mais amul am ñu ngi sant bu baax ci turu ministre de la santé ak délégation bi bii mu àndal di di sant aussi service di d'hygiène ci liggéey bi nga xam ne tàmbali na ko fi ci juróom ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci dëkk bi fas yéene koo tënk ba ñaar fukki fan ak juróom ñett ci ci weer wi ñu nekk kon ñu ngi sant bu baax tey jéggalu ci kàddu yi ak euh, premier ministre euh, monsieur Ousmane Sonko euh, sant suñu sëriñ le xalif général de Mourides sëriñ Mountaga Mbacké yàlla na fi yal na wér te yàgg fi sant tamit porte parole sëriñ Bass Abdou Khadre sant borom Touba bu baax a baax su ngeen gisee nu ñuy duggee fii dinañ xam ni teewaay bi ak accueil bi ndigal la te xam naa ni fi Touba nit ñi si si ndigal lañuy la wéy te ci sant comi comité boo xam ni moom moo taxaw pour ñu def fi dispositif sanitaire boo xam ni moom la ñu war a waajal waajal pour wàccaay màggal Touba parce que xam na ni mbooloom bu takku euh, dina fi ñëw liggéey nañ si nag liggéey bu bu mucc ayib présenté na ma euh, dispositif bi te gis naa ni lu ñu war a jël yëpp ci matukaay jël nañ ko ba mu ba mu mat sëkk lu ñu ñaan yàlla rek mooy màggal bi ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm ñu lu ñu war a jëfandikoo yëpp ñu jëfandikoo ci jàmm yàlla may ñu màggal boo xam ni taw féex lay nekk ci ñun ñëpp di sant tamit autorité administrative yu fi teew gouverneur gis nañ taxawaayam depuis buñ commencé di waajal màggal bi guddi ak bëccëg moom ak équipe am yëpp préfet sous-préfet sant tamit délégation ministère de la santé ñu fi ñu fi teewu ñoom tamit depuis bu ñu commencé di wax waajal màggal bi taxaw nañ ci bu baax a baax te lu ñu woon tey ci dispositif bi wane na lu ñu waroon def yëpp euh, euh, def nañ ko di sant directeur hôpitaux yu fi nekk gis naa ni seen taxawaay bu baax a baax médecin district yu fi nekk bu nekk Mbacké bu nekk bambe bu nekk Diourbel ñoom ñëpp ñu ngi ci taxaw bu bu baax a baax service d'hygiène won nañ ma lu mu nekk di def te xam naa ni liggéey bu baax a baax la ñuy sumb fii nii si Touba pour waajal euh, màggal gi mais di gën tamit sant président euh, premier ministre ak gouvernement bi parce que année bi dañu waxoon ni comme xawoon nañu am tuuti jafe-jafe si côté inondation te dañuy ragal ni xëy na jafe-jafe si wàllum wàllum euh, jàngoro yi wàllu wér yaram mun na mun na am dañoo yokk ambulance bu ñu doon joxe année bi parce que am nañ caisse d'avance bu ñu doon joxe wante année bi dañoo jël huit cent million ne nañ ko jox hôpitaux ñetti hôpitaux Touba pour mun leen gën euh, jàppale pour ñu mën a gën a mën a faj fagaru si màggal Touba bi nga xam ni duñu si am vraiment benn benn benn gàllankoor te xam yaakaar naa ni euh, koppar buñ buñ bu ñu jëbalal hôpitaux yi. dañ koy jëfandikoo bu baax a baax ba mu nekk njëriñ askan bi nekk tamit njëriñ dañoo ñu ñëw màggal Touba mais mu nekk tamit njëriñ su màggal Touba jàllee ba pare parce que hôpitaux yooyu tamit dañu war continuer di di fonctionner di joxe service euh, service boo xam ni moom la population bi di xaar damay sant conseil municipal bu Touba sant aussi Touba si kanam ak mboolem ñu fi nekk si ay association ñoo xam ni ñu ngi jàpp si dëkk bi jafe-jafe bu fi am ñu ngi siy jàpp di ko saafara te xam naa ni euh, euh, su fekkee ni amuñ woon benn taxawaay du mu wax système de santé bi du dem mais dina am loo xam ni dina dina lëj tuuti wante vraiment man xam naa si biir Touba ñoom ñu ngi ñëw di mu wax si ministère bi fale lu ñu nekk di def fii nii si wér si mbirum wér gu yaram xam naa dañ ko yéene Touba yéene ko waa Touba yéene ko waa Sénégal yëpp te maa ngi leen di gën a ñaax ñu gën si taxaw parce que santé lu mu laaj pour ñu pour suñ objectif ñu mën a ko jot financement bu bëree bëre la laaj état bi kese du ko mën a def il faut que population yi bon volonté yi ñu mën si dugal seen loxo partenaire au développement yi dina ci dugal seen loxo parce que tey Sénégal soo jëlee du santé rek moo am boo xam ni soxla nañ ci financement mbay baa ngi fi éducation baa ngi fi jàngub alxuraan baa ngi fi euh, pêche baa ngi fi donc secteur boo jot soxla nañ xaalis donc dañuy xool ku nekk ñaata lañ la war a jox pour nga mun a dox mais santé soo xayma lu muy soxla pour dox duñ état bi kese mënu ko joxe te xam naa ni bonne volonté yi ñu ngi koy joxe damay profité fii si sa kanam di leen di leen di leen remercier te di ñaan yàlla ñu gën a yokk seen loxo yàlla may leen wér yaram may leen gudd fan may leen kattan pour ñuy gën di taxaw suñu système de santé Sénégal mais ngeen def ci ñaan bu bu bu baax a baax. am na tamit. Euh, Euh, ndimbal boo xam ni jóge na si si ministère de la santé xam naa ni dage bi moom après dina ko dina ko jox seen seen service yi mooy lu denrée alimentaire ak euh, yeneen produit boo xam ni pour pour affaire set xam ni peut-être dina leen mën a jàppale si si si màggal bi pour mooy mooy tënk xam naa ni jot bi moom amul te dama waroon sax baalu pour temps bu ñu bu ñu la toogloo fii te xam naa ni da nga amoon yeneen soxla ak yeneen itte yu ngoon ndox dama bëgg rek nga ñaan ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal gouvernement bi ñaanal ñu fas yéene ñëw si màggal tubaab yi ñu ñëw si jàmm ñu def màggal tubaab bi si jàmm ñu ñibbi si jàmm fekk seen famille yëpp jàmm fekk waa Sénégal yëpp si jàmm jërëjëf wasalaam. ministre de la santé Ibrahima si ñi lay delloo am nuyu bu baax ak mboolem délégation bi nga ànd ak bépp tàmbale ci gouverneur de la région de Diourbel ak préfet bu Mbacké ak mboolem ñi ngi ànd ak ñëpp rawatina secrétaire général bi nga xam ne ak di ñuy njëkk a tàmbale ak Magal Touba gi 2008 2009 boobu moo fi nekkoon kon xam na liggéey bu baax. bàyyiwuma kenn dégg nañ kàddu yu baax a baax rafetlu nañ ko bu baax ndax yëg nañ ne na ma ko waxee woon démb rek def ngeen ci yitte def ci taxawaay rawatina li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram moom moo war a jiitu lépp ndax li wolof yi di wax naan soxla bu dee ñaar boo wér dafa ne kon moom mooy jiitu lépp. day loo xam ne ku ko ko yàlla defal bari nga ko yëg day fekk nga ñàkk ko yàlla dañ ci yàlla musal màggal gi xam nga ne ay millions yi nit a fi daje kon nag bu yàlla defee li ma daa wax rek la sëñ bi daa wax naan ku ne la jàkk bu ko ne gestu ma ndax bi ngeen fi toogee yàggagut waaye yéene ji ak yitte ji gis nañ ko te njabootu Sëñ Tuubaa moom loolu rek la ànd ak di teraanga akuk yëkk ndax lu mu doon rek Sëriñ Tuubaa defal leen ko ba noppi waaye nit nag bu nekkee ci li ko gën a ñor di léppam nga wane ci sa yitte ak sa taxawaay loolu dañ koy rafetlu bu baax kon ñu ngi lay yóbbanteem nuyu ci sa kilifa yi la fi yabal di lay eh, nuyu yow itam di leen sant leen sant bu baax di leen gërëm ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha nag ndax yàlla def na tey jii moo leen waroon a recevoir waaye yàlla def. mu bokk ci bis yi nga xam du ko ubbi da koy def xalwatu mu jox ma ndigal moo amoon yéene lool jàkkaarloo yow ndax xam naa ñàkkut say ndaw yu daa dox sa digg moom ba tax amoon na yéene lool gis la kon mu ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm sëñ Abdou Lahad Ka leeral na ma lépp ci taxawaay yi nga xam ne def ngeen ko ci dëkk bi muy taxawaayu kawe kon loolu moom dañ leen ci sant di leen ci gërëm di nuyu. docteur Dieng mi ngi àndal ak docteur Sourang ci taxawaayum ak yitteem ci jàmbaaram ci liggéey bi di nuyu directeur hôpital Matlaboul Fawzayni ak day màgg Dieng di nuyu directeur hôpital Ndamatou bàyyiwuma kenn daal boo limee da ngay juum waaye li ci am solo daal mooy yitte ji nga xam ne waa commission bi yor wàllu santé ci euh, comité organisation bi at yëpp ñu ngi ko daa wax ndax daanaka mooy li jëm ci wàllu kër docteur yi mooy garab yeeg ndax xam nga ne nit ñi bu ci waxtu màggal bi ay téeméeri poste poste lañ ci def ngir nit ñi mën cee fajoo mottoo ñaar téeméeri million kon bu ngeen ko yóbbu ba huit cent millions loolu kon yëkkati ngeen ko bu baax kon day mel ne bañu ba ñoom ñuy sàkk ñu yokk ko sax dañoo waxoon ne màggal gi dox na fukki at ak nangam te daanaka li mu yokk bëriwut te nit ñi ni ñu yokk ëpp na kon bu ngeen xaymaa la seen bopp ba jiituñu ci loolu ak cant ak gërëm képp lañ leen ci amal di leen bu baax yàlla dimbali leen ba noppi indi fi wér gu ci réew mi ndax li ngeen wax màggal gi dafa tombeek nawet te nawet ku ne xam na day àndaale ci jàngoro yoo xam ne bu dara xewtoon tam day am bu ànd ak mbooloo mi dajaloo te am na ci loo xam ne li ci ëpp. ci ndox mi ak weñ yi ci lay jaar wér yu bari bari yooyu yëpp ci gàttandu gi la bokk kon nag ñi ngi ñaan ñu àgg ci jàmm te yàlla suñu borom bi nga xam ne mooy saafara ndax mooy teg mooy technique mooy technique jàngoor waaye moo koy saafara yàlla na ñu dimbale ba màggat gi ñu génn ci jàmm te kenn bañu wér di ndax màggat gi moom nañ ko waxee woon deux mille vingt-deux rek suñ suñ bakkan jëraluñu ñàkk jëfe ndigalu suñ Tuubaa kon nag yàlla na yàlla dimbale ba fekk ñu nekk ci jàmm rek ndax moom bu leneen bu bu ak wér di amoon du ci yàq dara kon nag loolu moom dañuy ñaan yàlla dimbali ñu ba màggal gi ñu àgg ca jàmm te dara bañ a xew lu dul jàmm bu jàllee itam dara bañ a amaat lu dul jàmm wala rawatina ci wàllu wér-gu-yaram kon ñu ngi leen di beesal ak cant ci tuuru sëriñ bi leen ñaanu bu baax yàlla kàttandal leen. ndax yaakaar ji yaatu yaakaar ji nit ñi am ci yéen yaatu na te lépp yaakaar rek tax kon nag yàlla na suñ borom dimbale ba yaakaar ji ñu am ci yéen yàlla bañ ko tas ndax loolu mooy doon njëriñu nit ñi.